radiyallahu anhu mi nga xamante ni dafa ne moom dafa tuddee boppam xaadimu rasul xam nga ñu bari xamuñu la war a tur woowu déedéet moom daf ne tuddee naa sama bopp xaadimu rasul ñene luy xaadimu rasul mu ngi mooy koo xamante ni bi jëfam ak waxam yépp léegi yeneen bi la ko jox mooy moom lay liggéeyal ñu ne ko ah wax rey de nee nga sa jëf ak sa wax yëpp yonent nga ko jox. Mm-hmm. mu ne moom laa ko jox de. Mm-hmm. ñu ne ko léegi noo koy defee. Mm-hmm. mu ne leen at mi ñaata weer la. ñu ko at mi de fukki weer ak ñaar la mu ne diglu leen. mu ne salaatu sitta. bi ma di sitta. taati batta. maa ngi tisaay. mu ne léegi salaatu sitta juróom-benn weer yëpp dama koy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. tolloog digle ba. Mhm. lu des juróom benn weer. Mhm. mu ne bi mat hisita mhm. ma tàgg ko yeneen juróom benn weer yi ci des yëpp. taati batt nee nag taati bat boobu mooy dinaa ko indi te lii lu dog lay doon mooy duutuma ko bàyyi lii de sama dund. maa itisaay ànd ak diko ko roy nag. kon de xanaa wasali moo taslima ja lañu la wallaay mooy ja yàlla waxoon ya yaa yàlla dina amanu. waaw. aaya ba la jëfandikoo. <laughs> ne dootuma ko bàyyi. <laughs> dootuma ko bàyyi mu ne taati dinaa ko indi battan muy loo xam lu dog lay doon dootuma ko bàyyi. ndeysaan. da caa wax ba ne léegi dama ko def sax bor nga xam ne bu ma defee ren junni déwén damay jéem a def junni lu topp. Mm-hmm. kon kuy bu ne maay xaadimu rasul. Mm-hmm. ah kenn mëntu ko wecc. mu ñu ne ko léegi yow kii lu tax kan ba tax nga ne mu jaral lii mu ne muhammadun huwal karimul mufradu ne huwal nabiyu wa rasulul mun jiitu nee na muhammad moomu moomu ko jaral woo moom alkarim mooy ku tedd ko xam ne mufradun moo moom moo kenn ci tedd ko kenn fekk ko ci ne huwa nabiyu moom mooy ki nga xam moom la yàlla di waxal ba pare wa rasul waxloo ko al mun jitu ki nga xam mooy ku tedd ñu ne ko kooku mooy kan mu ne sabata anna rabbana lam yuridi mislahu fa mislahu lam yuridi lu tax mu dafa sax ne mone dafa sama borom saxal na ne ne mhm. namut li nga bind keneen koo xamante ni men nga ni yonente bi sallallahu alayhi ne muhammadun misaaluhu lam yaati fii ma mada wa abadan laa yaati mhm. ne muhammad moomu moomu ma ko jaral mhm. misaaluhu ku mel ni moom lam yaati musut ñëw fii ma ci lu passé woon wa abadan ba faaw it laa yaati yi ku mel ni moom itam du ñëwaat yemu ci loolu hmm. mu ne lam yabdu mislul Moustapha Muhammadin hmm. sirran wa jahran fil baraya samati hmm. mu ne dafa musul feeñ mislul Moustapha ku mel ni Moustapha boobu noonu nga xam ne moom la ñu Muhammad parce que yàllaa ko tànn ci biir tànn fi moo ñu tuddee ko Moustapha mu sirran ci li nga li nga xamante ni moo ñu nëbbu ñun woo jaxaran ak li feeñ tañ xam ko fil baraaya ci mbindeef yëpp yaa samadi mu tudd foofu turu yàlla ne amu ci kenn koo xamante ni mel nga ni yonent bi sallallahu alayhi wa kon kii may nañu sans léegi ñun tim ñu mën a xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne dayoo ji mu am ni mu toll moom fa yàlla ah mu jël dundam yëpp jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séddale ko ci juróom-benn juróom-benn ba pare wax ne li ma ko jaral mooy di dafa nekk ko xamante ni yàlla mosul bindu ku mel ni moom. kon léegi képp koo xamante ni bii xam nga sëñ tubaa rek léegi sëñ tubaa sas na la sas na la mooy lan. Hmm. demal nga gëstu ji wala nga jéem a xam lu tax mu wax ci kii wax ji toll nii. kon moom moo ñu ko gëmloo. dégg nga. ma ñëwaat ci beneen mag moo xamante ni bii daf ñoo mayaat sens. pour que ñun tim ñu mën a xam. yonent bi kii mooy kan li tax mu jaral leen lim leen jaral. Mhm. mooy Cheikh Saadu Abi. Mhm. defe naa kuy xaadal rek xam nga ko. Mhm. moom moo xam ne yaa xabaza saaka nabil akramu. ne maa misluhu fil waral muqaddamu. ne yaa laytani kuntu waxate ba dem ba ca kanam yaa laytani kuntu turaban alihi. wa laytuhu wa bi waslihi. mu waxaat ca innal muraada ba ne bi nuurihi adaa ma fil kawni waaye nag wa uhtiyal ibaadu surul xawli mu ne yaa habasa woo naa mbaax goo xam ne baax na ba yéem ñu ne ko ci kan mu ne saaka mbaax googa nabiyul akramu ma yent bu tedd mi mu ne maa misluhu fil waral muqaddamu amul kenn koo xamante ni bi am na ku mel ni moom ci mbindeef koo xam ne yàlla mën na koo jiital doog cee teg yonent bi mu ne amut yàlla rek la jiital doog cee teg kum ciy teg ne yàllay tëni xoolal wax foofu Mhm. ak dayoom ni mu toll moom mu ne yàlla it ni ako neexoon kuntu man ma nekk turaaban ali suuf dàllu yonent bi mhm. suuf dàll yi lii tee waroo yi mu ne ako neexoon ma nekk loolu su ko defee walaytuhoo wa akramani bi waslihi bu ko defee fu mu jëm jëme ma fa fu mu joggi fu mu joggi ma joggi sama kaw fu yegg ma yegg fa mhm. ñu ne lu tax mu ne parce que kooku bi nóori yi ci leeram googu aba ala leerale maa fil kaw ni lépp lu nekk ci kaw ni bi ku ko xam a ko xamul ci leeram gi la ko yàlla leerale sëtam ba pare wallaay sëtam ba pare ne wa uxtiya al ibaadu surul aw ne wa uxtiya joxe na al ibaadu jaam ñëpp surul aw ne secret boo xam ne moo moo mooy joxe noflaay mm. ku ko am ku ak ku am ak ku ko xam ku ko xamul yëpp nee na yaa ngi ko ame ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ah kon kii ne sens la boo xam ne bi daf koo joxe ci yeneen bi sallallahu alayhi wa pour ñu xam ko mm-hmm. xam nga kooku lim mu wax noonu. Mhm. seex na seex saat bu wax ko ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. di sëtam. Mhm. kon kooku jàngale na na. jàngale boo xamante ni bi ñun danañu may sens. ñun tim ñu mën a xam kan mooy yeneen bi. sallallahu alayhi wa sallam. waaye noonu it ngay demee. seen geneen góor feelu leen. te tuddoon naa sànq ci commencement bi mhm. muy Cheikh Seydi Hadji Malick mhm. mu wax foofu ne wa innahu is araada allahu nasatana mhm. abaana min nuurihi nuuran na bil alami wa innahu lekk mbir tey mbir ñu tuddee ko dambiru saadu nga xam ne boo ko waxee ci arab normalement ñëpp dañ ne war na tekk di la déglu ba xam lan lay bëgg a wax mu ne is araada allahu nasatana bi ñu yàlla bëggee sos abaana la la la faccalee mi nóori yi ci leeram gi nooran na bii leera genante bi al alam yi ki nga xam ne mooy tudd xam alam tudd xam mooy kooko kooko ma xam ko mhm. fi ne ku xamul yenente bi amul moom kay bañ a bëgg fi ne mhm. foofu borom xam-xam yi daal di laaj ne waaw ndax foofu dafay abaana mi nuur yi googu maanaam la fàccelee ci leeram gi hmm. ndax fàcc gi fàcc tab xiit la tab mooy hmm. juróom-ñeent la fukk la woon ñu jël ci benn kon juróom-ñeent dafay des hmm. wala ndax dafay nekk fàcc goo xam ne bi fàcc doom la parce que comme li nga xam ne euh, ru euh, li mu doon wax ne ruuxun tudd fa ne ruux ba pare ne min nii mhm. ba ñenn ñi seen ñàkk def yóbbu leen ci ñu ne kon kay kon yàlla jur Iisa mhm. ñu ne laaj abaana googu gan la ci ñeen leen bi ci benn mhm. du tabxiit parce que tabxiit mooy loo xam ne bi juróom fukk la woon bu ñu ci jëlee benn kon day daal des juróom-ñeent mooy yàlla waxoon ne lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun loolu tabxiit la maanaam da ngay jël lenn ci li nga gën a bëgg joxe waxuñ la nga joxe lépp waxuñ la nga joxel lu bon dañ la jëlal ci lenn ci li nga gën a bëgg. Mhm. kon anam gi yàlla jëlee leeram ci boppam bind ci leer ak yeneen bi. Mhm. fam ko jëlee wàññiwut fa leer ak yàlla dara. macha allah mhm. nag mu amal ci yeneen bi. ne innal awaalima aliha wa saafiliha ne asiatun talahat min afdali nazami. Maodo nee na. aalim yi nga gis yëpp ñii ne nañ cent vingt quatre mille lañ aala hmm. mu ne aaliha wa saafilaha yi ci mën a féete kaw ci waxin ak yi ci féete suuf yëpp asi atun talaat hmm. ay ceeñeer la yoo xamante ni bi nga ko amale ci yonent bi min abdali nazam yi ñu ngi tukkee ci ki xam moo gën ci lu yàlla bind hmm. te loolu bi ko waxee dafa dëppoog addis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañu wax ne jaabir ibnu abdullah moo laaj laaj bii ma lay bëgg a wax bi sallallahu alayhi wa mhm. def na ko yaa rasulullahi sallallahu bi abi anta wa ummi maanaam yow mi nga xam ne yaa ma gënal sama yaay ak sama baay mhm. ne ko axbir ni an awli sayin xalaqoo allahu taala xablal asiya ne ko wax ma ana lan la yàlla dikk bind avant muy bind leneen mhm. yonent bi ne ko yaa jaabir inna allaha taala xalaqani qabla al asiya nuura nabika yàlla bind na ma la njëkk muy bind dara leer ak sa yenent bi la njëkk bind mun na mu ci boppam moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. nee na yàlla jëlee ko min yi ca leeram nga te wàññiwut ca mat yàlla nga dara mhm. mu ne fa jaala mu def saalika nuuru yaduuru bi qudrati xaysu ma saa allah walam yakun fi saalika al mu ne bi bi amee mhm. yàlla jërul leer yonent bi rek sallallahu alayhi rek de daal di koy bind noonu de daf koo jaarale ci ay kiiraay mhm. mu jug jug kiiraay mu jaarale ko mu jaarale ko ci ay géej mhm. yoo xam ne bu ci nekk dafa jaarale ànd ak loolu yëpp nag mu ànd ak di wëndeelu ci yëpp aras mhm. bi muy wëndeelu ci aras ba mu yàgg nag yàlla bi mu bëggee amal leneen nag xam nga leer googu de ëpp mu jékki-jékki amal ci dara daf ko doon fell di fell di fell di fell di ko fellaat ci ko xam fell mooy di ci comp ndànk ndànk di bind la doon def Mm-hmm. moo tax boo xoolee li yent bi tontu jaabir def na ko. Mm-hmm. fii saalikal waxtu jamono boobu bi nga xam ne bi sama leer gi mi ngi windeelu ci arab